rafetlu suñu ànd ak ci biir Sunugal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci biir la jotaayu xibaar ñu ànd ak yéen jukki leen ponk yi ci gën a fës doore ko ku mbirum Adji Sarr yi ëttu yéenekaay yi xëy di waxtaane waxtaanewaat ginnaaw euh, Babacar Touré di taskatu xibaar bi nga xam ne defoon na ci ay révélation ci ayu bés yi la ñu weesu mu mel ni daal am na lu yees ci boobu le dossier jëm ci mbirum Adji Sarr ak ñi mu sekkaloon loolu la coow danañ ko gën a yaatal ci biir xibaar yi Mamiko mi ñu jébbaloon ab plainte te ki ko jébbaloon boobu boobule plainte di Aminata Badiane di présidente comité d'organisation bu élection Miss Sénégal euh, niki tey nag lay wuy ji moom mamiko ca brigade des mœurs Guy Marius Sagna daal dinañu koy génnee ci biir Ndakaaru mu mel ni daal daal dinañu koy transféré ci euh, li nga xam ne moom moo di euh, kàdduk ministre de de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr moom moo signé li nga xam ne moom moo di transfert Guy Marius Sagna ñenn ñi jàppale nag moom Guy mori Sagna li nga xam ne moom di ay yëngu-yëngal yi mu yam ci biir Ndakaaru euh, moo waral ñu daal di koy yóbbu ca euh, Kédougou li gën a fës dañ koy jeexalee ak la xew ca yëmbal lu doy waar la nga xam ne moom fa daal di xew ca yëmbal noor benn ñaareel boo xam ne moom moo euh, daal di boom borom këram ginnaaw bu mu ko jàppee ci ay partie intime moom la waral lool nag muy coow li nga xam ne moom am ci seen biir mbokk yi xarit yi li li fës ci ponk yi ngeen taxir lu bàkk bi jàll ñu faram fàcc ko salaamaaleykum mbokk yi nuyuwaat leen ci gën gi nuyoo nañu ko junjee woon ci bopp xibaar yi noonu lañu koy dooree faram ak coowal Adji Sarr ginnaaw révélation yi nga xam ne eh, Babacar Touré di taskatu xibaar moom génnoon na fi ay bés yi ñu weesu doon def ay révélation jëmale ko eh, ci ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr ne dafa dawoon ca fa ñu ko eh, dencoon ba dem ci ay mbokkam lu ni nag ñu gisoon nekk Mati Trois Pommes daal dinay génn weddi woon lu ni ak ñenn yi moom maître El Hadji Diouf mi nga xam ne moom la nekk mooy avocat Adji Sarr ca jooju la jamono doon na wax ne Adji Sarr dem na ci ay mbokkam waaye itam ñu gisaat ne moom Babacar Touré daal dinay génnaat def ay révélation di wax rek ne waa bipp dañoo jëliwaat Adji Sarr ca dëkkam ba indiwaat ko fi nga xam ne moom moo di ci biir Ndakaaru moom ca noppee itam wax na ne maître El Hadji Diouf annoncé woon na plainte jëmale ko ci moom mi waxoon wax ji di Babacar Touré waaye boobu ba léegi mi ngi xaar boobu la plainte àddu wax ci leneen coowal mi Sénégal li nga xam ne moom moo fi amoon ayu basi la ñu weesu ba coow li taxoon ay plainte yu bare bari dal di ciy juddu ki nga xam ne nag moom moo di administratrice bu groupe femme chic di Mamiko moom jotoon na plainte am tey lay wuy ji ca brigade des mœurs ginnaaw nag li nga xam ne moom moo di boobu boobule plainte bi Amina Badiane porté plainte ki nga xam ne moom moo di euh, Mamiko li ko waral mu di dafa doon def ay live ci Facebook doon jokkalante ak ñenn ci ay miss ñu yëkkati ay tuuma di ko teg ci ndoddum ki nga xam ne moom moo di kile di Amina Badiane ba tax ak dundam nekkoon ci danger bu métti métti tax na nag mu daal di koy porter plainte tey ci 11 la le kile di euh, Mamiko fa yéene wuy ji ca brigade des mœurs ngir nag tontu ci ay laaj yu ñu ko war a sampal Guy Maurice Sagna transféré nañu ko a Kédougou lu ni nag mu ngi bàyyeeko ci ministère de la santé ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Diouf Sarr moo signé li nga xam ne moom moo di euh, décret rek ñu dal di yóbbu Guy Marius Sagna ca Kédougou du lenn lu dul bëgg ko punir ndax bokk na ci activiste yi nga xam ne moo leen gën a sonal te amaana bu ñu ko yóbboo ca Kédougou kaso la ci biir kaso yi maanaam kaso goo xam ne dafay gis jant waaye activité yi nga xam ne moo la doon amal fii ci biir réew mi surtout ci biir Ndakaaru dootul amati ñu wax ci coowal site euh, ak kii la di euh, Papa Sow ginnaaw combat bi nga xam ne moom la ñu doon fas yéene amal juróomi fan ci weeru décembre gi la ñu weesu ci arène nationale te mujjewu يقول antu seenu reliquat nag kile di Pape ab Fall di promoteur bi nga xam ne moo tëggoon làmbu jooju ne du leen ko jox moom si te ginnaaw bu mu amalee ay waxtaan yu yaatu ak li nga xam ne moom moo di taskati xibaar yi nee na reliquat bi nga xam ne moom la ko Pape Abdou Fall deseel tam toll ci ñaar fukki million ak juróom bu ko joxul dafay dem ba këram jëli ko te bu boobaa dana ko ko jox par la force ndax xaalis boobu def ko fa yéene tabaxal këru ki nga xam ne moom moo di yaayu foodee di xaritam bi génnoon àdduna te itam moom Pape Abdou Fall li mu nam def ngir tee seen ay reliquat tegu ko ci yoon tegu ko ci dëgg te bu noppee ci li nga xam ne moom lay waajal dina dem ca kër Pape Abdou Fall ñu wadd wax ci leneen ci wàllum criminalisation homosexuelle ci réewum Sénégal mu mel ni ñi nga xam ne ñoom ñoo di ànd sàmm jikko yi ak yenn kilifa yi ci biir réew mi te saa su nekk seen kàddu doon benn rekk lànk ba kandaar ne wàllum góor jigéen duñ ko daganal ci réewum Sénégal samedi bi la ñu weesu doon na ñamal waxtaan wu yaatu seenum ndaje ak ak taskati xibaar yi ci ay ponk yoo xam ne tënk nañu ko fa dal di nañuy fas yéene li nga xam ne moom moo di assemblée nationale ngir ñu dal di adapté li nga xam ne moom moo di boobule loi ngir criminaliser li nga xam ne moom moo di homosexuel ci réewum Sénégal ki nga xam ne moom moo di oustaz Makhtar Sarr nag ay kàddoom mu mel ni dafa dëggal li nga xam ne moom moo di la waa ànd sàmm jikko yi wax nee na dinañu fas yéene def seen kéem kattan ngir nag saisir assemblée nationale te bu boobaa député yi dañu adapté li nga xam ne moom boobule euh, par la force cowal passeport diplomatique li ñu doon tudd El Hadji Mamadou Sall ak Boubacar Biaye daal dinay jëlaat beneen tournure ndax ñaari agent yu ministère des affaires étrangères jot nañ leen teg loxo ak keneen euh, ñi leen teg ñu division des investigations criminelles jamono ji ñi ngi garde à vue tey ci altine ji la ñu fas yéene am li nga xam ne moom moo di retour au parquet ñu fas yéene leen déféré ñu jano ak ki nga xam ne moom di euh, procureur bi bu ñu sukkandikoo bàyyikoo ci LS mi nga xam ne moom la ñu daal di eh, teg loxo ci ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo di agent yu ministre des affaires étrangères yi nee nañu eh, kenn ci ay autorité yu wuyoo ci turu AK moo ko jaay li nga xam ne moom moo di passeport diplomatique boobu moom AK mi ñu tudd aw turam ci loolu la coow jamono ji kenn gisu ko mu mel ni dafa daal di daw eh, génn réew mi ci loolu la coow ba tey moom El Hadji Mamadou Sall ak Boubacar Biaye fas yéene nañoo janook juge bi ñaar fukki fan ak amal ñu àddu ci leneen coow loo xam ne depuis samedi ba léegi ñu ngi koy waxtaane ci réewum Sénégal mu di benn journaliste bu siiw bu nekk ci benn télé bu mag fii ci réewum Sénégal la ñu daal di partager ay vidéo sextape moom ak benn ministre de la République boo xam ne actuellement mu ngi ci nguuruk euh, Macky Sall mu mel ni ñoom ñaar daal dañu doon bëggante ba tax na ñu doon yónnante ay vidéo intime yooyu la vidéo nag moom mujjee tasaaro ba àgg ci ki nga xam ne moom moo di euh, koccu mu di koy dugal ci ab ci nag dal dinay menacer eh, képp koo xam ne rek yaa ngi yónnante yenn vidéo yi ak yenn foto yi bu doxee ba agsi ci loxoom eh, dana ko eh, publier ñu dem ci kàddu yi Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké ginnaaw installation nouveau représentant xalif général de Mourides ca Pikine Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké di porte-parole bu xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké daal dinay profité ci boobu la occasion ngir yëkkati ay kàddu jëmale ko ci taalibe yi ngir nag ñu def ndànk tënk ci li leen di élection locale yi la ñu dëkkmal ngir nag ñu daal di xam fan lañuy teg seen tànk ci lépp loo xam ne rek moo jëm ci coow ak lu ni mel nee na homme politique yi jaruñu kenn di sacrifier sa bopp ba noppi lancé ab appel jëmale ko ci képp koo xam ne ndaw nga ngir nag nga dal di euh, topp yoonu Serigne Touba moo gën ñuy topp li nga xam ne moom moo di langu politique gi naam bu fekkee politique ak am réew ñoo ànd waaye ak ni ñu ko euh, gisee jamono ji amalul euh, kenn njariñ ca yëmbal noor la ñuy dem ak lu doy waar la fa xew benn ñaareel boo xam ne moom moo dal jàpp ci ay parti intime borom këram boo xam ne am na soixante-dix ans bu ñu sukkandiko ci l'observateur ak les échos loolu nag coow li mi ngi juddoo ci li nga xam ne moom moo di ab lamp ak ab télé ba tax na mu dal di mujjee faat ki nga xam ne moom moo di borom këram mu doon coow loo xam ne waaye Yëmbal Noor moom la ñuy waxtaanee ci anam bu doy waar boobu moom mi nga xam ne moom moo def boobu le xeetu ñaawteef itam yoon dal na koy tek loxo ñu àddu wax ci leneen Balla Gaye ak kile ñaari adversaire yi nga xam ne saa su nekk rek ñi dañu leen di jéem a euh, féewale di gis ne jàmm mënul am ci seen biir ñu dal di gis itam ay vidéo yoo xam ne mi ngi euh, circuler ni ki démb ba léegi moom Balla ak kile di euh, Modou Lo ab bu ñu doon bokk ci benn warga boo xam ne ñu ngi koy publicité naam génnagul waaye dañoo gis ne ñoom ñaar ñoo def boobule publicité bañ ca noppee itam mu mel ni dañoo yendu kër ki nga xam ne moom moo di Aziz Ndiaye ci ak waxtaan ba jubóo ko waaye itam kafo agré ba ñenn ñi daal dinañu apprécier vidéo boobu di eh, wax nekk làmb kafo agré la warul mën a tax ñuy féewale ñaari mbër yi saa su nekk ñu gis itam ñi nga xam ne moom moo di Balla Gaye ak Modou Lo jamono ji eh, jàmm mu nga ci seen biir eh, alxeri ji ba ci na ci ki nga xam ne moom moo di Pendo gisee ñu gis ne jëlati nañu ko soxna ñu koy ñaanal heureux ménage moom Pendo Guissé nee madame Diouf la ci ay kàddu yoo xam ne daal dina koy tënk ak ñenn ay naataango nee na awo moom doomam la te borom këram bi ñu xamante ak léegi yàggul naam sax ah, ci kàddu yi ful ak fayda yi nga xam ne moom la doon faral di wax saa su nekk rek ne sëy la bëgg bu gisee ku ko jël soxna dafay dem sëy noonu la xamante ak ki nga xam ne moo di borom këram ñaareel la demul ca Gàmbi ga ñu bari foogoon nekk ca Gàmbi la ñu koy ah, jëlee soxna moom ah, Saint-Louis lay dellu ci ay maamam soirée Wally Seck Sidi Diop bi nga xam ne moom la ñu fas yéene amal ca Kaolack mu mel ni daal eh, ci ab dogalu préfet eh, ba taxoon ñu annulé eh, soirée ki nga xam ne moom moo di Sidi Diop gisoon nañu nag ñi nga xam ne ñoom ñoo fare ci langu Sidi Diop ca boobu la bis daal di amal am ndaje ak taskati xibaar yi di def ay révélation ci lan moo waral préfet daal di annulé li nga xam ne moom moo di soirée Sidi Diop boobu ndaxte waajaloon nañu ko ba noppi waaye préfet ak fa mu tënk annulé soirée bu Sidi Diop ki nga xam ne moom moo di Wally moo njëkk jàpp ab datam Sidi Diop soog ñëw mu mel ni daal li ñuy wax concurrence bi ci diggante Waly Diop ak Sidi Diop te saa su nekk Sidi Diop moom mooy def marquage à la dëgg la waaye ñu nemmeeku itam ca bis ba moom Waly Seck daal li nga xam ne moom moo di soirée boobu Kaolack yëpp daal di génn waaye itam artistes yu baree bari daal di bàyyeekoo ci biir Ndakaaru ak yenn ci ay raison ci biir réew mi dem wuy ji ki nga xam ne moom moo di Waly Seck mbokk yi xarit yi lii mooy li gënoon fës ci xibaaru bés bi nii lañu ko daal di tënkee di leen ñaanal ngeen di wéyal suñuy programme ñaanal leen kendalu jàmm te leen di jox dig dajee ëllëg incha allah ci yeneen i xibaar ci biir Sunugal 24 jaa ngeen jëf.